su ko defee nee na yooyu yëpp nag suñu ko boole seet fokk nu xalaat eh, lan maa mawqiful insaan wal insaanil muslim tijaaha almuharramaati bi wasfin xaas aw tijaaha alislaami bi wasfin shamil حيث أن الإسلام أصبح كالحياة كل شيء منه يرتبط بشيء آخر المحرمات منه بالمحللات والظواهر بالبواطن وكل طرف منه بطرف آخر إلى أن يعود موعد الجزئيات التي تكون الكلية العظمى وإحنا yooyu yëpp ku ko seetlu dinga laaj lan moo war a nekk attitude nit nit ki ñoo tudde jullit lan moo war a nekk attitude am ci kanamu yi ñu araamal wala sax lan moo war a nekk attitude am ci ci kanamu l'islam rek parce que euh, lislaam moog dund benn lañu loo ci tudd rek topp ko bala nga bay gis ceen nga ko anu ba ko yeew ca morom ba moo tax boo nee yi araam rek yi dagan ni la maa ngi may itam boo ne yi ci biir yi ci biti ni la maa ngi ci këti lislaam yu bare fekkee nañu xalaat ba ñu wax ci seen làmmiñ ni lislaam li ko tardeel moo di gouvernement pays musulman yi ña di chef ya dañu nanguwul dimbale islam ñii ni waaye xam na ne nit demee ci yàlla xam na jamono ni mu demee ci yàlla li mu wax nii xamuleen ni yéen ñëpp fexe ngeen dem aljanna moom ci naan ndox naan ci ndox mi la yemale kooku du puukare dafa xam ne yàlla nit ñi rekk la sopp xam ni nit ñi lu ñu ayib ayib yàlla rek la ñu am foofu la dëgg wax ko su ko defee alquran ci boppam wax lii waxuma ngeen bañ ma moy yàllaa ko wax nee na dama bëgg rekk bu dee moy bu garaaw ngeen suturaal seen bopp su fekkee ni suturaal nga sa bopp yàlla d'accord na ak yow ndax xam na lu xew yàlla mi la bind xam na ni boole na laag yoo xam ni doo jub ba faw mënul nekk jub ba faw nit mënu ko su ko defee nag la mu wax ni inna rabbaka waasiul maghfira a illa an yushraka bi waaye nag wa yaxfiru ma duna dalik yàlla daal xam nga ki mu bañ kii ni lii yàlla araamal du dëgg waru araam kooku daal amatul bunt bu mu jaar ndax déclaré na yàlla guerre jeex na contrat ba jeex na moom jàmbur la yàlla jaambur la waaw ki ni lii yàlla araamal waru ko woon a araamal kooku contrat ba jeex na xam nga ki yàlla d'accord ci ni ko kii kat yàlla yaa ko araamal waaye moomu ma bopp maa ngi def jéggal ma waaw kooku d'accord nag moom waaw ndax contrat baa ngi fi waaw su ko defee dafa mel na dafa mel na leen ñi amee tariqa yi am coono bu day na di bëgg nit ñi lu ñu def te mu wóor leen ni lii wuute nag bëgg-bëggu yàlla ñu am fu ñu jonkan won yàlla ni ko maa ko def de wante weddiwuma sak yàlla weddiwuma sa autorité ci sama kaw maa ngi la koy jéggalu bu ko defee nag ñi koy def dafa am lu leen di gaar moo di dañuy dal di def dañuy def lintizaam fii silki usaatil umma lu lu daw yaram la lu neex la lu yéeme la waaw moo di yàlla daf ci indi image bu doy waar yonent bi indi ci image bu doy waar moo di yàlla dafa sopp nit ba àndu ci ak sagom cofeel gi mu sopp nit mu sopp yonent yi ba àndu ci ak sagom yonent yi itam ki leen mujj te ameen leen seen cummikaay di défendre seen cause mu di Muhammad mu sopp ko ba àndu ci ak sagom te xeetu Muhammad dajeeg jamono boo xam ni mooy yàlla dafa xew yàlla itam ci kaw màndu war a recevoir ñëpp kenn ku ne mu seet la nga def ci yiw mu fay la ko la nga def ci musiba mu jëfante kook yow te loolu it su ko defee li ëpp ci xeetu Muhammad ñëpp safara la ñu jëm ci nit ñi ak cofeelam ci yonent yi ak cofeelam ci Muhammad naka la koy maye mu jël li ëpp ci xeetu Muhammad di ko yóbbu safara su ko defee nag mu wut nag benn teewuwaay boo xam ni nee na dañuy fang ñi nga xam ne ñoo dàqoon na mooy ci xeetu Muhammad bu ñu ñëwee dañuy taxaw ni ko nooy mooy kati xeetu ki nga gën a sopp waxuñu ko ni nooy weddikati xeet wi waaw naxnu usatul umma al muhammadiya lañ koy wax waaye duñ ko wax ni ko naxnu tuwaatul umma waaw ñu ni waaw muhammad bu keroogee nag mu ba may ñaan yàlla mu may ma ma intervenir booba ñi moyul taxuñu ñu mooy a tax li ahlil kabair waaw waaw moo tax moo tax boo gisee soo ko waxee ana na mbokk yu ci eh, eh, eh, mel na ni mel na ni dara duñu ko jaral yonent yeeg borom tariqa yi ñëpp mën nañ nu ëpp cër waaye nag ni it suñu kemtalaayu cofeel ci yàlla bi ngi ci ñun wax dëgg yàlla ba tax na it yàlla lu nu ko waxal loo xam ni ku ko seet da foog ni dafa am lu noo yàq mënul nekk waaw kooku mënul nekk du nu wax mukk loo xam ni ku ko seet dangaa defe ni dafa am lu noo yàq ci wàllu yàlla mënul nekk waaw loolu mënul nekk Maodo mën na nu ëpp Cheikh Al mën na nu ëpp Cheikh El Hadj Omar mën na nu ëpp Cheikh Ahmed Tidiane noonu yonent bi noonu waaye li nu tollool du nu gën a sopp yàlla ñoom mënul nekk mënul nekk waaye itam eh, dama ko ci jot ay lettre rek dafa mel ni dafa junj nii kon nag nit sañ na naan sàngara sañ eh, gis nga gis nga xàmmee lu baax gis nga itam bakkaar yi ngeen foog ni mooy alak nit du loolu bakkaar bi nit di def ci biir néegam lor ci boppam kooku yàlla digganteem ak nit kan yàlla bakkaar bi gën a garaaw ci moom mooy bi ngay def ci pénc mi lor waa mi kooku mooy dëgg-dëgg bàkkaar kooku it foog ñu xàmmee nag xeetu bàkkaar yi su ko defee mu mel na euh, yow yaa ngi ci penc mi yaay jiitu ci jàkk ji yaay ci mujj yaay jàng kaamil bi yaay nodd yaay séddale ndabi ngénte waaye fu nit xamee lu bon ca morom ma yaa ko ko wax waaw xamuloo ni yow kenn kooku bu ñu posé woon sa bakkaar yaa téeméeri junniy naan kat ñu dem wacc la waaw ñu dugg àjjana nga taxaw ci bunt ba di xool waaw mënul ñàkk dangay xam mooy gune na mu toll ci yàlla waaw yàlla ñi mu gën a ban mooy ñi nga xam ne sopp nañu an tachia al faaxishatu fi alladina amanu waaw yàlla ñi mu gën a bañ ci alquran tudd na leen nee na mooy ñi nga xam ni ci quartier bi fu fi naankat ne xam nañu ko tudd kook seen lammi fu fi njaalokat nekk xam nañu ko tudd kook seen lammi fu sëkkëre kër nekk xam nañu ko tudd ko ca pénc ma yàlla nee na ñooñu rek laa amal affaire loolu moo tax yonent bi wax ni maa ngi leen di xamal ne fexe ba rafetal sa jikko nee na dana seeyal bàkkaar ni ki jant bu tàng di seeyale doju neige inna alxasanaati yudhibna sayiat yàlla ko wax ci alquran waaw inna alxasanaati yudhibna sayiat nee na benn bu rafet ba nga ma defal benn bu ñaaw ba nga ma tooñ du ko mën a résister waaw waaw benn bu ñaaw bi ma def rek danaa kontaan ci benn bu rafet bi ma defal ba bële fàtte naa ko bu yàgg innal xasanaat yuzhibna sayyi'aat waaw xam naa su ma jógetee ñu ni ma ngaa moyloo nit ñi yàlla déedéet waaw waaw nee na lëf dagan na lëf araam na attachement bi yàlla am ci nit bëgg benn dialogue permanent nekk seen diggante moo ko waral nee na du leneen nee na li la koy woon mooy nitu yàlla yi li ñuy jëriñu ci téere yi dul téere sharia moo ëpp li ñuy jëriñu ci téere sharia cheikh wax na ko dafay wax ni jàngalekat yi yoon yi nee na seen téere yi xusumaat rekk ci ne kenn ku ci ne lim ne aram nag dagan na boo ko laajee lu tax du la ko wax waaw cheikh a ko waxal boppam wa fil kutubil fiqhiyati illa al xusumaat wax na ko ba tey moo tax lu ne wax nañ ko ko ca faat ñii ni traître la ñii ni dégg nga maam dafa weddi yàlla ñi ni cheikh lu ne wax nañ lu nekk wax nañ ko waaw dana bu ko defee dialogue boobu rek moo waral nangam dagan na nangam aram na ngay seet sa jamono lu tax mu dagan lu tax mu aram boole ci ak sa personnalité ak sa dignité nag séq koog yàlla ndax moo la jox personnalité bi moo la jox dignité bi waaw mu mel ni nag ci ni ñu dajee ñoom ñëpp ni bàkkaaru jamono dina di soppiku ngir jamono lëf dana araam ren te na muy araameek na muy tànge bu déwénee fokk seetaat ko yëf dana woyof ren te bu déwénee foog ñu tiisal ko jamono ko waral ak ñi nga amal affaire bi tey bakkaaru looy jënd lekk ko mu araam bakkaaru looy jënd naan ko mu araam am na bakkaar yu ko gën a garaaw ndax jamono te moo di fii mu ne nit ñi àgg nañ ci yeewu àgg ci ay gànnaay foo xam ni kii dara dul mécceem lu dul di taal xol yi bakkaaram mënu ko mënul yem beneen bakkaar rek ndax bés bu nit ñi fëlxoo àdduna tukki ndax bare pexe waaw ndax bare pexe ba tax na soo seetloo li yàlla wax ci alquran ni nit ñi mu ci gën a mere mooy ñi nga xam ni jekk nañu ci biti waaye dégguñu jamono waaw jekk nañu ci biti waaye dégguñu jamono ñàkk dégg jamono nag dafay dàq personnalité te yàlla nag képp koo xam ni ñàkk dégg jamono tax na sa personnalité nekkatul ci yow nee na yaag bant yi la yemale wa ida raaytahum tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasmaa li qawlihim ka annahum xushubun musannada e, moo ko waxal boppam ci alquran su ko defee nag mu dinaa ko faral di wax dégg jamono ña ca gën a laru defe naa ni mooy sëriñ si te loolu Cheikh El Hadj Omar seede na ko Cheikh El Hadj Malick na ko Cheikh El Khalifa na ko bi ko Cheikh El Hadj Omar seede moo di dañu seet li mu rey ci jullit ak li mu rey ci yéefee ñu nekk benn daan na wax ni euh, ñoom ñu yéeme lañu kenn xamul yar yi ñu am fu ñu ko jële seen dégg jamono ak seen dégg njàng lu yéeme la Cheikh El Hadj Omarul Fouti ku yéeme la waaw ku yéeme la ci doomu nit ku ñuul dëkk fii ci Sénégal dem jëli werd sukk ci kanamu Sayid Mouhamadul Ghali mu may ko werd moom Cheikh El Hadj ka ko may werd bu gisee cheikh dana lox ba du ànd ak sagom bu demee kër cheikh dàllam du dugg ca biir kër gi bu teegee ci xadara bu jegeen pencum cheikh du addu kookaa may cheikh alxaaji omar werd Cheikh El dëkk ci Sénégal di nit ku ñuul taalif taalifam ba mu àgg ñu jël taalif ba boole ko ak taalif bi Cheikh gën a fonk ci taalifam yi mool ko ndax ni ñu niroo lii lu yéeme la waaw Cheikh El Hadj Omar àgg na ci xam nit ñi ñoom boo gisee ñu naan wëli yu ku mu gis xam sa baatin eh, gis nga ñoom dafa am benn xam-xamu psychologie bu ñu am bu nga xam ni jéggi na ndeyo xam àdduna ak xam nit ñi xam seeni réaction bokkuñu seen muy ñëw rek atte nañu ko am fu ñu ko teg loolu moo tax seen Xaj Omar daan na jàpp lu jullit rek ñu rey ko ngir xam ni dundam la moo yàq ci lislaam dund fukki junni yéeféer du ko yàq waaw yéen gis ku ñëw tàmbale fële ca buntu ba di raam wut ko bu ko xoolee rek xam mooy kat ñëw ba ci kanamam jox ko loxo ñu ko yal la fi yàlla bàyyi nangam nangam raam dellu ca gannaaw di déyanteeg nit rek mu dal xam la moo déyanteeg kooka xam ni ci kawam la nekk waaw ci xam ne nit ñi rek ak seen réaction bu ko nuyee bu xoolee sa bët rek jeex na ci moom waaw bu ko defee booy dégg booy déyaate rek mu dal indi baytam ba waaw matxun wa dammun fi maqaamin waaxidin min waaxidin li waaxidin ajabaani seetal loolu bu ko defee su ko waxee ca kaw rek fekk yaa ngi déyaati nga bàyyi déyaati ba xam nga ni xam na li nga wax lan la wax ni daal di tagg léegi ŋàññi léegi ci benn barab bi te kenn nit ki nee na maa ngi yéemu ci ñaari kéemaan yooyu la waaw Cheikh El Hadj Umar moo ko wax matxun wa damun fi maqaamin waaxidi min waaxidin li waaxidi ajabaani waaw ba tax na eh, ñoom ci seen wàllu bopp xam nañu jamono xam boo xam ne duñ ci weddi seen bopp weddi sa bopp mi ngi ci réere jamono tax àdduna rek teelaa nelaw adduna rek moo la tee nelaw ak sa kaalaat sa coow adduna rek moo la tee nelaw yow xam nga ko waaye amuloo courage wut àdduna ji ni ko ko ñuy wut adduna wute waaw nga tardé ca adduna ja ba mu def ci yow naqar wu nga xam ni foo tollu yaa ngi ci kaw nit kooku ñoom mucc nañu loolu moo tax ma ni bu leen kenn waxati ni ñoom ay sëriñ lañu ñoom ay prince yi diine lañu waaw ay prince yi diine lañu Cheikh El Hadj Omar Cheikh Ahmed Tijani Cheikh El Hadj Malick Cheikh El Khalifa sëriñ ay prince yi diine lañu parce que ki dégg jamono kay am courage wu fekki jamono ki liggéey génn nga ci ci euh, euh, euh, sëriñ sëriñ amul courage loolu amu ko te kat addunaa la teen nelaw xam nga ko ñépp xam nañu ko waaw moo la teen nelaw moo tax Cheikh junj na ko léeb na ko benn image bu amul morom moo di nee ñaar ne dañoo bokk daara ba ñu génnee ci daara ji kii dem ca ndakaaru tëdd kii dem ca gannaaw sañ ci tëdd te ku ci nekk la nga jàng ngi ci sa dënn ñu dem caa dema dema dema dema dem ba benn bis ka ca gannaaw sañ ci pir yónni benn taalibeem ñu ko demal ca kacal ndakaaru ni ko na ma ñaanal yàlla waa ji génn jaaxle lool jaaxle lool ba ñëw ndakaaru dem ci kër te ñu ko yónni fekk mu tabax fa benn pale boo xam ni tappiye rek doo ca ñeme yéeg mu ni ko muy laajte ñu naan ko tey ëllëg dafa jàpp dafa dem fii mu toog rek ba indi ko mu dindi lettre bi jox ko ni ko suma sëriñ nee na nga ñaanal ko nee na yéen a bokkoon daara mu ni ko waaw mu ni ko nee ko danaa ko ñaanal waaye su bëggee ñaan gi nangu bëgg addunaam gi mu bëgg adduna na ko faxas ci xolam ah taalibe bi génn jaaxle lool dama dem ba ca kaw ga fekk fa sëriñam mu ne ko man wax nag ko waaye nee na bëgg àdduna gi nga bëgg àdduna na nga ko génne sa xol mu ne ko wax na dëgg moom yàlla daf ko jox àdduna mu teg ko ci gannaaw loxoom tolluwu ko fen man nag jotuma ci mooma te nelaw waaw loolu cheikh a ngi koy def pour nit ñi mi ngi koy wax pour nit ñi war a xam ne jamono moom la ñuy wax al jismu fil xaanut wal qalbu fil malakut waaw la waaja demoon ci benn boutique xool nii rek seen benn nitu yàlla guy jënd yëpp a gën rafet yëpp mu di ko jënd naka la seen ñeenti bët yi daje ci wàllu psychologie boobu ma leen di wax rek moo xam ne rek kii ni ma ko xoolee weddi na ko mu wax ko baat bu gàtt nag ni ko sama yaram a nekk ci boutique bi wante sama xol a nga ca yàlla mu ni nag bu ko cër la boo xam ni du ko jóg rekk man ko am su ko defee mu dellu ca li Cheikh Al Hadj Malick waxoon jamono yi moo firi ji alquran ca ndar dégg naa ci sëriñ Alioune Guèye mu ni ma chemise allah ji yile ngeen di sol ci seen maam laa ko jëkk gise ba muy dem ci pirim ndar ma ñawlu na ci juróom benn fukk nee ma ay waxande lañu ko def diggante cawali baxa mante bu rafet chemise alaji nee na ma lan ca ñawlu nee na ci ay waxande lañu ko def nee na ñu ni ko góor gi lii nag mu ni dama fas yéene bés bu nekk ak sañseem waaw waaw ba prix mi jeex ah nee na su dee firi ba jël baaraamam teg ko ci kayit nee na doo bëgg mu teggi ko mukk ndax yànj nee na ñu dem ndar nee na mu tàmbali prima kenn mësul gis prima mel noonu am naa ca maam joo xam ni nee na ma man te maama ma may wér te ca sañse rek a tax ma jëbbalu ci moom waaw waaw nee na maa ngi ko gis mu def bopp neen sol baxa tur kibaag mbubb ma dana jël tàmb sembe bu benn baaraam yile ba xam ne ñu ngi ko suub ba tabarkal la ne mu tegoo ko sol karbat yile nee na maa ngi topp ci gannaawam ne karbat yaa ngi settax rek nee waaye danoo àgg ci kër gi rek ma ñaan ko werd ba moo tax ñoom du ñu sëriñ kese kese ñoom daal ay prince lañu ci wàllu lislaam yàlla leen ko defal su ko defee loolu ñoom xamal nañ ko seen bopp te xam nañu ni doomu aadama bu nekk xalifatullahi la fil ard ah xanaa ka ko bañ a dégg kay ñàkkal bopp boppam fayda waaye kenn ku ne ci ñun xalifatullahi la fil ard rôle ba war loolu feeñ ba tax na doomu aadama ci kaw suuf sang la bu cang ga dikkul ci moom la wante du ci yàlla yàlla takkal la ko lépp loo xam ne mën na dëggal cang ga rek jox na ko ko loolu moo tax am na benn waykat bu ñoo wax Ahmad Shawqi nee na ku seetlu ni la alquran wax laysa ka mislihi shay'un waaw booba dara amul booba dara amul yàllaa xool boppam ci boppam ci lu seetu ba gis nam na mel mu ne kenn melul ni man kenn melul ni man joojule moo waral yi mu bind ngir ñu mën a seede kenn melul ni moom te ñooñu mu bind nag ka mu ca xaw def nawle du def kenn nawle waaye ka mu ca samp te ni moom la am moom la taxawal mooy nit fekke nañu xalaat ba wax ci seen làmmiñ ni l'islam li ko tardeel moo di gouvernement pays musulman yi ña di chef ya dañu nanguwul dimbali l'islam ñii ni déedéet borom xam-xam yi ci pays l'islam yi ñoo nangu wala def effort pour dimbali l'islam ma wax leen ni yéen dal ay simpliste ngeen ndax problème bi ëpp na solo ni ngeen ko wax te it yéen a ngi jooyal Muhammad te moom jooyalul boppam bu leen jàpp ni échec gu musulman yi échec gu Muhammad la échec gu musulman yi du échec gu Muhammad ndax fu mission bu réussir amee rek kër Muhammad a lu tax parce que moo jëkk woote moo jëkk na jëkk reconnaître bi alamiyati kalimati lxaq ya ahlal kitab taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum yonent bi moo jëkk a nangu ni njëkki dëgg benn xeet moomu benn dëgg benn diine moomu ko kon nag ma weddi yahud du ma weddi nasaraan dinaa leen woo baat bi xam ni euh, dañu ko war universaliser ñu àndandoo universaliser ko bala ñoo jamono raw looloo tax mu woo leen ci alquran moom la ñuy wax congrès tripartite am na benn docteur Haykal taalif na ci congrès tripartite bi yonent bi woote woon ci Madina benn téere indiwu ko dañ ko fàtte dañ ko fàtte te invité na yahud yi invité chrétiens yi pour ñu bokk kalimatul xaq ndax benn xeet moomu ko benn diine moom ko waaw mu ni leen na eh, ixtilaafu tajaarub yi ak alwaan yi ak alsun yi kooku nag ak ni nit ñi séddalikoo ila umamin wa shuub lam yakun illa li taxlidi mabdai taaruf waaw eh, inna xalaqnaakum inna akramakum inda allahi atqaakum Eh, xam xaddul wiqaaya la ñu wax xaddul wiqaaya la ñu wax eh, inna akramakum inda allahi atqaakum taxoon na kuy génne sa buntu néeg jëm ci jàkk bi da ngay boole say cati mbubb dégg nga maam sëgg xool ci suuf ngir ñu ne da nga ragal yàlla waaw eh, Umar ibnul Xataab ma xam ni dafa yàq tul moo di kenn ku nekk ngay jooy ci sa téere lislaam a defoon lii moo defoon lii bu nu daje woon defaat lii dellu cosaan nekk na nu meloon nu def lii nu def la kooku réere jamono la cosaan dem na li fi dese fi des kenn ku ne sa jom moo lay àggale fa nga war a àgg jooy ko du tax mu dellu si waaw kooku duñ ci d'accord ak ñoom te yàlla itam bu xamoon ni lii dafa yàq yàllaam du ko bàyyi mu am yàlla dara du yàq yàllaam lu nar yàq yàllaam du ko bàyyi mu am ëpp na ko waaw kon nag loo gis rek jéem ko interpréter neneen waaye taxaw naan yàlla nee na moom kay yévéer yi kay ñu nekk ci àjjana ñun jullit yi ci safara la ñuy ci àdduna ba ba ñuy dee dem aljanna nangam nangam gis nga yile yile ñàkk dégg la ñàkk dégg la waaw yooyu la ñàkk dégg la da nga defe ni nag loolu rek mën na nekk mën na nekk nga ni yàlla nee eh, eh, tubaab yi àdduna seen àjjana lay doon nun nag nun jullit yi àdduna sunu safara lay doon ne ne kooku ñàkk xam la kooku itam nag ñàkk xam la fu ñu ko teg kooku kooku caalit koo amul foo ko teg nga ah ñu wax ni waaw yàlla wax na ci alquran ni yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia nee tubaab yi seen xam-xam yi yëpp xam-xamu biti la waaye baatin bi xamalu leen ko est ce yow yàlla xamal na la baatin gis nga nax sa bopp baaxul ah ndax sa baaxul ci sa bopp bàcceel rek waaw waaw wax naa leen ni euh, yonent bi wax na bu wér ni yàlla dana dem ba ñàkk ci jullit yi woote ne ñoo ragal di mogg moggulu ku ko taxawul diine nee na bu keroogee dana fekk samba boy boo xam ne man nga dajeeg moom ci boutique bi mu jënd butéelu alkolam yàlla dana ko dooleel ba mu taxawul ko diineem ji loolu ñëw na ndax tey lu nu soxla dañuy wuti ñu nu ca dimbali ndax jaaru nu yàlla fan ko war a jaar mu taxaw di seetaan lu ñeneen deful doo ci jot man nga yooxu fii nag naan yàlla biti rek la leen xamal biir bi xamuñu ko noonu ci suñu safara la ne du faj li xew waaw li xew daal faj ko jaar yàlla fa nga ko war a jaare rek lay doon waaw di nax sa bopp bokkul ndax mbokk ma ba mu ñëwee te boola di ko ilimaan jëm ah eh, ndax li ilimaan ji nit ku ñuul moom muy nit ku weex ilimaan ji julli mu ni moom di topp ci gannaaw ilimaan ji julli ba nopp ñu dem ci kër gi ilimaan ji ren di xaar ah commencé wàjj mu ne nañ ko may ci wàjj mu ne ko mukk waaw ah, waaw mukk ci àdduna abaloo ni ku julliwul sama julli sama ren di waru la doy ah waaye fekk ne nax sa bopp baaxul moo tax wax naa leen ko ni leen dal bind leen neneen parce que kooku doxul te eh, yooxu file dem ca kaaba ga di yooxu yàlla ngi lay ñaan ci sa tedd nga yonent bi nga alak al istimar dégg nga nga alak awaanul istimar di di loxal sa baat janoo kaaba gi yàlla na nga rey colonialiste nga maam le colonialisme li mu def ak néo colonialisme yile yile du tax yàlla jub ci dégg nga ah na nga am na ci ay ay laaj yi laaj yoo xam ni nee na bala noo jeexal dellu si bi nee na daal dafa mel ni loolu du tax yàlla itam sottal yëf fii nee na yëf yi daal jéem a am xel la na ko Cheikh El Hadj waxe woon daxitam itam eh, am na ci yonent yi ku ñuy wax Isa ibnu Maryam mas na jaaxle ci lu deme nii am ci jamonoom te moo di li Ibrahim indi woon Moussa indi ko dem na ba dalalatul xelu nit ñi mu doon dundal te nag diine bu dalalatul sa xel rek dootoo ko mat taalibe man nga nekk ci jàkk ji nit ñi soow ngay soowandoo mais bu sa xel dalul doo mat taalibe diine ji la ngaa def yëpp korowe la waaw mais nekkatuloo taalibe diine ji loolu dafa daloon Iisaa ibnu Maryam ci jamonoom dem na ba xam ni li Ibrahim indi woon dalalatul xelu nit ndax nit ñi soppeeku nañu ba mu ëpp li Moussa indi woon dalalatul xelu nit ñi dafa mujj indi mabda al xubb mabda al xubb ca la taxaw ba xaw taxawal yàlla taxawaayu yàlla mii kat du monstre bu nga xam ni dafa war a jàpp nit ñi rek écraser leen espèce su bàyyi la ñu ko déggul dem nañ ci ba xaw bakkaar te fekk na mat na alxub lay dafa bëgg nit ñi bañ a jàppe yàlla monstre bu nga xam ni ni buur yi yenuloo nit ñu baax ñi ay xeer di leen ceene di leen doon ay karawaas te yooya jamono mu bëgg génn ci diine principe bu tax nit ñi xam ni yàlla mi moom espèce su bàyyi la mais am na ñu déggul waxin wa ba tax na jamono dafay àgg fu nga xam ni itam fokk nga seet ne diine di jëriñoo nit ñi nit ñi jëriñoo diine te rëq-rëq du am lool rek la def ba tax na nit ñi nga xam ni ñoo di ilimaan yu mag yi def tariqa yi ñoom itam xàmme nañu ko xamme nañu ko xamme goo xam ni soo gisee ni ñu tërale ñu tërale ko noonu te it lu jafee xamme la xam nga ki nga xam ni dafa ñëw yàlla wax li mu wax ci jullit wax ni ku naan sàngara alku nga wax ni ku njaaloo alku nga ci bàkkaar yi nga xam ni ñoo gën a tuuti maanaam sàngara ak njaalo ci bàkkaar yi gën a tuuti la bokk mu teg ca yu ya nag ni ki kañaan ak mbañeel ak ya ca topp waaw yonent bi xam nga am na xadis yu mu waxe nii ku naan sàngara bu ëllëgee ñu wax nañu laa mettitale dañoo jël ña safara seen nalit yi ci seen biir bu ñu ko génnee yoo leen ko jox nga naan ko nangam nangam gis nga yooyu yonent bee ko wax mais mission yonent bi moo ëpp loolu foofu la nit ñu dul xam ne gis nga arab yi bañoon nañu sàngara bañin bu nga xam ni ndax daawuñu ko defe mukk ci biir néeg ci pénc lañu ko daan def te chaque fois que ñu def ko ci pénc bi bala ñu fay jógee xeex te xeex yooyu nag daan nañ ko ci denc muy màgg ba jur noone te nag yàlla comme bàkkaar yi yëpp wax nañu ni bàkkaar yi bu ñu leen rangalee ba ca gën tuuti di nit ku tëdd ndeyam nee na ba ca gën a màgg mooy noonu nit walla nga bañ ko waaw bakkaar ya ñu rangale nit te dëng nee ma ca gën a tuuti ba ba ca gën a màgg mooy nga noonu nit wala nga bañ ba tax na yonent bi bu dee wax ak arab yi di leen tiital ndax seen coow la ca koñ yaag yëpp bu mu tax nga réere mission mission moo di àjjana ak safara yonent bi am na ci beneen conception bu ëpp doole ni mu ko waxe moom waaye ñi nga doon waxal loolu la ñu laaj te Cheikh Hadj Malick wax na ko moom itam conception boobu am na ko rabiatal adawiya li muy nekk nekk jigéen wax na ko mas na posé problème bi jigéen la jànq la jànq la wax na ni euh, problème mu safara daal war nañ ko seetaat ndax yàq na pas-pasu nit ñëpp te kooku nag nitu yàlla yëpp d'accord nañ ci ba mu defee exposé am lañ ci d'accord ak moom ndax daf leen ni nag dema dema dema dem nag ba yàlla ni mu foore ci suñu biir pas-pas mu bëgg ko bokk ak safara kile itam nag du wax waaw kon nag nañu fexe ba dindi safara mu bañatee exister te kile ñëpp d'accord nañ ci ak moom Cheikh Hadj Malick mujj na ci d'accord ak moom wax na ko wax na ko bi moo firee alquran ba ñu ne fiiha sururun marfuwa wa akwabun mawdua wa namariqu masfufa wa zarabiyu mabsuuta alquran na ko wax nee na àjjana ay lal yu ñu defar lal ko fa nekk nangam nangam ay weer yoo xam ni da nga naan nangam nangam mais Cheikh El Hadj Malick bi nag bu fekkee ni yàlla nag eh, dinu sonnal ci eh, dinu formé dinu éduqué yóbbuwunu lu dul foo am ay lal ak i weer ki nag nanu bàyyi nu toog ci àdduna benn yoon <coughs> ah ah, <coughs> ah? ah? parce que nag am na ci àdduna bu fekkee nag moom foofu rek la ñu jëm kay bu la yeboo tàmbali ci bëccëg ah ba tax na ñoom xam nañu lu xew dañuy nëbb nag nëbb bi moo di xam nañ ni bépp jullit léegi boo xëyee balaa ngoon di nga bàkkaar téeméeri bàkkaar di nga bàkkaar bàkkaaru dégg di nga bàkkaar bàkkaaru gis di nga bàkkaar bàkkaaru tudd ñoom xam nañu ko te it li yàlla wax ni bàkkaar yooyu ku ko def génn na ci ñoom benn bu ci ne tax na mu génn ci nit te jullit yi tey bu ne jullit def ci lu mat téeméer kile nag naka lañ ko atte fokk ñu seetaat diini ji nag bu ñu ko seetaatul nag musiba dafa am looloo tax ñoom am na benn étape bu ñu jot a def boo demee ci tariqa yëpp am na ci ndax boo demee ci tariqa sayid abdul qadir al jaylani am na salaatu ala nabi boo xam ni ku ci dugg ñu ni la boo ko defee benn yoon texe nga yaag sa njaboot lu waral loolu ana lu ko waral fekk koo xam ne bëccëg bu ne mu mooy téeméeri yoon nga jox ko benn salaatu ni ko boo ko defee texe nga yaag sa njaboot lu ko waral nit ki ne xam jamono la ak dalal xelu ki nga waxal ah te loolu it ci wàllu tijaan yi ñu ngi ko def ci salaatul fatiha ala marratun minha min annaari fidyatun cheikh alhaj malik ko wax benn yoon bi rek doy pour nga am aljanna waaw te dem waxati ni bul wóolu pexum yàlla nangam nangam gis nga <laughs> ñoom dégg nañu jamono te seen jëf ngay seet ak seen dégg jamono moo ëpp doole ndax itam Cheikh Al wax na la ayaa ayuha albaani maxalla diyaafati alam taalaman anna aljalaa qaribu ki defar lu plan di tabax këram kooku la Maodo ni ko xamuloon ni xanaa xamuloon ni ca bàmmeel ya nga jëm et pourtant ndar Maodo ci ñi jëkk am taaxu kaw ci ndar la bokk ah xanaa boog appliqué wul bayti bi ci kawam mais appliqué na ko appliqué na ko ci kawam kii besoin la kii besoin la loolu nga xàmme nag su ko defee soo amul Euh, kartelu tabax korom koromb rek jàngal ko bayti bi xam nga ni bopp yàlla amalul pour dàq nit ñi aramalul pour pour nit ñi contrat la bu mu am digganteem ak nit contrat bu nga xam ni nag boo ko accepté volontairement d'accord boo jàppee ni dañ la ko rek d'accord bi looloo tax waxuma jëfi siyaasa yi mais jëfi jaamu yi sax bi mu ci gën a fonk te moo di julli nee na boo ko jàppewul moyen boo di defee méditation pour mën a jot ci jikko ju dimbale nee na baal na la ko waaw tant que du loolu ci yow baal na la ko waaw ndax inna salata tanha anil fahshai wal munkar nee na bu dul loolu ci yow baal na la ko tanha anil fahshai kullu salatihim illa fa kullu salatihim fahshau ah ana lu gën a garaaw mais lan la julli symboliser lan la symboliser ci kanamu julli moo di dund biir ak dund biti dund biti bi ñu nit di def def lu am njëriñ rek mi ngi ci julli nit war na bu taxawee muy taxawaay buy jur njëriñ ci dund war na bu sëggee muy sëggaay bu am njëriñ ci dund benn muy bay wala muy bale wala muy lal wala muy liggéey lu jëriñ nit waaw bu toogee noonu lu nit def rek war na fekk njëriña ca kon nag li nit war a yëngoo mu jëriñ yëpp indi nañ ko ci biir julli mu nekk symbole pour dundam kooku nag su la joxul occasion nga war a méditer xam yaay kan xam nit yàlla bu dee yàlla it yooyu nit ngeen def seen contrat tiq ko muy boroom ngay jàmbu nga xam ni dox na la dignité bi ci waat moom la yàlla wax ni fekk àgguloo foofu ci xalaat baal na la sa julli waaw baal na la ko ndax du jur dara bu dul jur dara baal na la ko ndax xolam nag bonewul noonu waaw te mu di la sonnal loo dul jariñoo yàlla xolam bonewul noonu waaw loolu moo tax mu indi ko ci beneen image diggante alxakim wal xaakim waaw ki ñu teg mu doxalal luwaa bi wàllam ak ki ñu teg mu dégg jamono ñoom ñaar du ñu mukk mu indi ko ci image bu nga xam ni diggante Muusa ibnu Imran yonent la ak Xadir te la ko indi ndax Muusa ibnu Imran yàlla ay table la ko jox jox ko ci li ngeen di wax les dix commandements ba table yooyu wàllu xukm la du wàllu xikma moo tax ba mu ko yàlla ni ko nag dama la jàppe parental moo tax ma jox la ko am na ñoo xam ni xam naa ni mët nañu ñor nañu xikma laa leen jox yow xukma laa la jox nangam araam na nangam dagan na mu ne ko kooku pour xale yu tuuti yi la ba yow xaleel nga ci man mu ne ko naka lay def ba mat perantal mu ne ko demal ca xabir mu jàngal la xikma la tax mu ñëw ànd ak xabir ñuy def seen voyage ba waaw nangam dagan na nangam araam na kooku pour pour ñii soog a tàmbali la waaye ñi ñor biir xikma la leen di jox moo tax pour nag xabir woon ko luy xikma ñu fekk doomu jàmbur rek bu ñu xamul ku ko jur xabir tër ko rey Moussa ni ko def nga musiba rey nit kat xaram na ni ko gis nga looloo tax yàlla boole mag yëpp xamaguloo dara mu ni ko nga ne mu ni ko xamuloo dara kii ma rey way juram dañu ñaan pour mu mu dëkk ñoom ca àjjana ba yàlla nangu na ñaan waaye comme bu amee bu demee ba nekk majeur dana def bàkkaar yu tax ñu condamné ko pour toujours yàlla ni naa ko rey léegi bala nekk majeur e kooku moo firi xikma xikma mooy lu ñëw xamuloo lan la tawar na dox war na dox moo tax jàngkatu xikma jàngkatu xukmu mën na bañ muñ waaye jàngkatu xikma foog mu muñ waaw foog mu muñ looloo tax nag xa ne ko alam lak laka innaka lan tastatia maay sabra man xakim laa boo àndeeg man foog nga sali waaw boo boo muñul nag mi du wéy ndax lii moo gën a tuuti ci li ma fas yéeneen def ah waaw nee na ba tax na alam aqul laka yéen ña ko jàng alam aqul laka innaka lan tastatia ma'i sabra xam nga ni yéen ñi jàng grammaire arab boo dàqee ak baatu lan dàqewuloo lam dàqewuloo laa xanaa lan nga dàqe la nga du am mukk du amati mukk alam aqul laka innaka lan tastatia abadan abadan abadan képp kuy jàng xikma doo mën a muñ mukk ndax xikma dàq lem moo dàq suukar moo dàq sàngara te du jeex mukk comme du jeex mukk sëg muñ du am ci àdduna mukk waaw loola tax loola tax ñu ko lan tastatia maayi sabra wante nag almaiya almaiya bayna bni imrani wal xadir Eh, ñun ñëpp ñun ñëpp bokk nañ ci kenn ku ne yaa ko moom ci sa jamono waaw ku ne yaa moom ci sa jamono ndax eh, Moussa Xabir eh, def ni Moussa ba ñoo génn waxoon naa la ni doo mën a muñ doo àtte na muñ mukk fekk ngay ànd ak man doo doo àtte muñ mukk ndax xikma moo mel noonu mais ànd man ga ko wax moom rek moomatu ko léegi ñun ñëpp moom nañu ko ci sunu jamono ku nekk yaa xam xakim ba ngaa àndal ñun ñëpp ko bopp moom rek moomu ko loolu it moo tax ñi Cheikh Al Hadj Malick tudde xulaatul mutasawifa ñi nga xam ni dañuy exagéré ci wàllu gëm yàlla ba bëgg delloo nit ñi cosaan nee na mi ngi laa xamal ni jamono bii du nangu kenn dellu cosaan ndax nee na yonent bi teel na ko wax jullit yi wax leen ni nii mu mel ci sama njëlbéen mu jub jamono ku ko bëgg wut da nga sa bopp lay won ni jamono ci loxo yàlla la nekk lu mu ci doxal rek loolu moo man dox su ko defee moo tax ñu bëgg koo xam ni xolam ak xam-xamam ak expérience am mën na ci yóbbaale nit ñi mu yóbbaale leen di leen wax yiw te du leen tànc ci seeni ayib du leen bundu xatal kooku la borom tariqa yu mujj d'accord ni nay am ci jamono loolu moom la Cheikh Al Hadj wax ni te it du woote du buukarewu waaye xam na ne nit demee ci yàlla xam na jamono ni mu demee ci yàlla li mu wax ni xamuleen ni yéen ñëpp fexe ngeen dem aljanna moom ci naan naan ci ndox mi la yemale kooku du bu kër dafa xam ne yàlla nit ñi rek la sopp